na mën a regrouper ci benn pourquoi pas et loolu ça permettrait vraiment que même lu ñuy wax ci en termes de dépenses de l'État attends xam nga train de vie nit ñi dañoo jàpp ne ci nombre de ministres rek la nombre de voitures yi te ne mais attends le gouvernement bi li ñuy li ñuy débourser en termes de en termes de soit salaire ou de financement ou de matériaux ak yeneen yu ci topp pour man lu war a mën a servir ci ci ci leneen yow euh, li nga wax nii dañu ko dissoudre ñu bari boo ko laajee sénégalais yi mënuñu la ko wax mënuñu la wax utilité bi lan la di mënuñu la wax ban njëriñ la am di du jeex du xaaj sincèrement donc jot na que ñu boole li nga xamante ne moom mooy moom mooy li am essentiel te dëgg-dëgg loolu moo am productivité hmm. et puis li nga xam ne sénégalais bi boo ko dee laaj pëkk-pëkk ne ko nax yow wax dëgg yàlla institution bi gis nga ci sa bopp na am na lu muy liggéey xoolal heureusement que aujourd'hui pôle judiciaire et bi ñëw na mais CREI cour boo xamante ne yow saa waay benn nit nga àtte. ah mais mais pourquoi dépenser autant en fait ci loo xam ne en réalité en termes de retour. gisuloo utilité bi nga xamante ne amal na ko askan wi donc vraiment pour man. gis nga demoon naa ba benn moment euh, quand il y avait mu bëri ay ministères yu fi doon jeex. Mhm. yu fi doon bëri ñu dem bay nommer ministre auprès du ministre. xam nga loolu yëpp fekk nañ ko fi ci biir réew mi am na fi c'est pas des choses que je ministre auprès de tel ministre on a vu ça ici dans ce pays il y a des choses yoo xamante ne il faut que pour man mu mu dakk quoi vraiment euh, les les directions inutiles les agences inutiles euh, bien que il y a eu des agences qu'on a supprimées par exemple concernant la la jeunesse yu fi war de tegoon yoo xamante ne amoon na bon amoon na départ bu baax mhm. bu nu ko dëgëraloon tuuti pour man mhm. ay ANEJ ak yeneen yu ci topp mënoon na vraiment aider aujourd'hui la jeunesse ça je trouve que ay yu yu intelligent la mais am na ci yoo xamante ne dëgg-dëgg seenub njëriñ man ba tey xaw ma ko ci réew mi te je trouve que ay bërëb la yoo xamante ne xaalis ba fa dajaloo dafa bari sans pour autant même ñu xam rentrée de fonds yi sortie de fonds yi fan lay jógee c'est-à-dire on a aucune visibilité aucune transparence ci li nga xam ne moom mooy action yi nga xamante ne moom la ñuy mener dans dans ce pays mm-hmm. alors s'il faut pour ça euh, en éliminer certains et garder les plus forts moi pour cette décision là plutôt que ñu ubbi ci loo xamante ne mënuñu ko contrôler dëgg-dëgg te boo gëstoo ba xool ba xool ca biir biir non seulement amalul njëriñ askan wi mhm. waaye boo moytuwulee yenn gap yu bari foofu nga koy fekk parce que ba li circuit yi ñuy jaar <laughs> circuit yi ñuy jaar moo ba Pape Ousmane Cissé mënoo maa posé question du ma ruube <laughs> kii dafa doy waar donc <laughs> circuit yi ñuy jaar duñu ko mën du am traçabilité et puis également du am transparence ak moom ginnaaw CNDT ci ñuy seer hmm, du bay tey lañ ko xam de <laughs> ngeen ko waxee nii am ñoo xam xamuñu ko euh, euh, collectivité locale yi mm-hmm. ñaata weer a ngi nii ah hmm. ñaata weer a ngi nii ñuy kii ñuy grève ëpp na at ëpp na at 2015 mm-hmm. euh, hmm. décret numéro 2015 1970 21 décembre 2015 2015 ci lañu ko créé. man gisaguma rapport bu mu def ñu wane ne lii ñoom ñoo ko liggéey peut que nag am na ñu ko gis. Mhm. xam nga dañu wax lan mooy euh, mission principale mooy mhm. soutenir le président de la république ci élaboration mécanisme coopération territoriale waaye itam di ko accompagner gouvernement bi ci promotion regroupement d'intérêt communautaire. Mhm. di ko dimbali ci collectivité locale ci création groupement d'intérêt communal établissement public territoriaux. mbët ngaa dégg ñu def loolu. alaaji benn également seen rôle xam nga dafa bokk ci naan facilité relations diggante gouvernement ak les collectivités euh, euh, locales ak collectivités territoriale yi mhm. loolu moom bokk na ci li nga xam ne moo ko tax a jóg. Mhm. facilité facilité ko léegi facilitation boobu noonu man gisuma ko ñu def ko ci euh, collectivité locale yi boobu ak léegi dañuy banque seen loxo yenn këyit da nga koy soxla doo ko mujjee am. Mhm. ñenn ñi dañuy war a juddu am euh, këyitu juddu nga dem ñu ne doo ko liggéey yenn saa yi nga bëgg këyit boo xam ne dangay dem mairie doo ko am boobu ba tey ñu ngi woote wàllu ba seen tutelle. mujjee ci dugal loxoom léegi ñoom dans tout ça ñoom fa lañ nekkoon. Mhm. est-ce que rôle facilitateur boobu ñu ngi koy def. Mhm. xam nga bërëb bu lekk kaay xaalis ak bërëb dañ maa fa rek parce que bëgg naa ndombal tànk man maa doon lii loolu ne dafa war a jeex ci Sénégal. Mhm. tey bu ñu ko dindee kenn ko ñaawlu xam nga lu tax amul lu mu apporté déjà. amul lu mu def loo xam diggante collectivité territoriale ak état bu Sénégal. bañ ko fi defee ba léegi Djibo Ka ñu ngi koy ñaanal yàlla na suuf oyof ci kawam. ñu jox ko Benoît Sambou lan la ci def. poste yi àndul ak politique. man Benoît sax laa fàtte woon. Benoît mooy mandataire bu benn. xam naa ko dama ko fàtte woon rek. wala man benn bopp yaakaar la du moom non APR. APR waaw lan moo doon dem kii moo daan ñëw ko euh, d' élection moo ko. moo ko doon gérer waaw mais feneen fu nekkoon yaa ngi koy fàttali. ministère de la jeunesse. waaw ak feneen ak feneen. donc ah, lii lii nii daal ñu ngi koy rafetlu en attendant yeneen di solution. parce que li ñu war a dissoudre pour mu demaat ci gafak askan bi war na war war na bari. Mmh. Mmh. poste boo xam ne dañ ko fiy def wala bépp mbir boo xam ne dañ ko def. institution bu ñu teg. ñu teg ko te amul lenn lu mu apporteel sénégalais yi décret moo ko defoon. na defaat décret di sóotu ko. Mhm. comme ni mu defee ci biir. par exemple sax koppar ba fay dem ñu ngi doon wax léegi ci hôpitaux yi mën na euh, permettre mu dimbali état bi yokk ci gafa gi ndax ñu mën a relever le plateau médical. na bu koppar fu muy demee wala tabax yi naa programme de campagne président waxoon na ni dina am ay structures yu bari dina leen supprimer. buñ ko buñ ko falee donc euh, voilà wax na ko mm, mm, mm. donc ça veut dire que li mu waxoon mi ngi koy commencer di di ko def léegi nag ñu ngi xaar la suite en tout cas yi ñu wax ne suudu bari na de. dama dama la bëgg compléter rek. maa ngi nii en truc en je suis je suis tombée sur un mu ne les institutions projet de loi de finances pour l'année 2023 le conseil économique social environnemental bi ma doon wax léegi CSE voit son mhm. budget s'élever près de huit milliards ah. exactement sept milliards cinq cent quarante et un millions quarante mille mu ne quant au haut conseil euh, des collectivités territoriales mhm. il sera doté d'un budget de plus de 9 milliards mu ne au total pour faire fonctionner ces deux entités mhm. les citoyens sénégalais mobilisent près de 17 milliards pour ñoom ñaari institution yooyu ñu dox 17 milliards Euh, conseil conseil économique et social mooy bi Idrissa Seck doon ñi te mu jéegi ñu jël ko teg ko ci bopp ba mhm. d'accord ah, d'accord <laughs> non René tu fàttali gars yi rek non vraiment. ma jaaxle dama nekkoon naan conseil économique lii xam nga conseil. économique et social ma gi ne ko kaay toog. jiite ko doxal. nga ni ma ci lan la ko. kaay toog kaay toog. <laughs> yow nekk di liggéey xaalis bi di kii conseil économique social xam nga kii sa vision da dépassé li mën a ko booy kaay <laughs> toog ñëwal nga toog. non nit ñi fàtte woon di xalaat naa di wax jaar non dëgg la nit ñi xalaat fàtte woon nañ ko sax noppi loolu daanaan fekk nga nekk di wax di wax di wax di kaas na ñëw ndeysaan jël la daal di lay noppiloo noppiloo jërëjëf jërëjëf ajaratu ngoone ay ca ñu daal di termine nag ak uray démb tudd nañ ko fi mu am benn jafe-jafe jëm ci ay oto yoo xamante ne daf ko doon teg muy dex diggante Dakar ak Saint-Louis nettali sax mu lañ koy waxee. ci lan borom la gën a dàkkee. waaw dañuy terminer ak moom rek. Euh, comme ça ñu dugg ak moom ci euh, waxtaan bi moom mu indil ñu ak ci ay leeral. oui mais laataa sax ngay ñëw ci projet beeg la ko wund bus yeeg ci aju euh, la ñu jàppoon ca Saint-Louis bàyyi nañ ko tàmbali nga daw tey wala ba tey fañ la téye fa lañ la.